sëñ bi Mbacke Balaye sax daal dina génn sëñ Mountakha daal dina génn wax ne politiciens yi bi nañ ko may li nga xam ne moo di jàmm nañ ko may jàmm ndax nag euh, nangu na li xam moo di bureau de vote yo amele ca Touba ne tamit policiers yi gendarme nañoo dimbalee am ñoo di euh, euh, Baye Fall yi ci liggéey bi noo gisee kàddu yoo nga xam ne ci na ko waaw ñu ngi koy rafetlu ndax territoire la Touba titre foncier la Serigne Touba ko moom mm-hmm. foofu moom lu mu fa dogal du am wax dëgg fa yàlla mooy borom mooy kilifa ga mooy xalifa ba mooy sëta Serigne Touba. moom lañ fa teg Mbacke Balla yàlla na fi yàgg te wér te yan bi oyof. waaye nag dañ koy masawu coono ndax dafa métti. xam nga tax mu métti ci benn côté moom bi Ousmane sonk amee jekku Sénégal dëgg xale yëpp jox ko bopp bu ne jug leen ñu jug tëdd leen ñu tëdd toog leen ñu toog man mi bu ma waree reer ñu ne Sonko ngi live ma bàyyi sama reer jug. du ma wax téléphone du ma wax dara donc kon kooku am na don de ba Ousmane Sonko tolloo foofu très sincèrement ñaan na Ousmane Sonko weñ loxoom Ousmane Sonko bàyyi. Mhm. mais nag yaa problème lan moo tax mu ñaan Macky Sall wala mu ñaan état ma généraliser samay wax te la laa di wax te mënuñ koo may ba léegi ci Ousmane sonk parce que wax na carrément ne euh, wax naa ñaan naa mais wax ju yegg xëy na dafa ko moom maanaam mayuñu ko. Mhm. li mu buggoon tey bu sañoon Ousmane Sonko du fanaan ci kaso bi waat tey ji à l'heure actuelle ci dimanche gi ñu toog di wax mhm. mais xëy na mayuñu ko xëy na. ka tax mayewul moo xam lu tax mayewul waaye ni ku nekk nag dafa am loo koy rusee ak loo koy xoolee ak loo koy jombe ndax boo dul mayee cër duñ la mayee cër ku dul mayee njekk duñ la mayee njekk ku dul suturaal ni yàlla du la suturaal mhm. donc tamit bu ne euh, Touba dootul amate élection yi waxoon na ko mais Macky Sall da ko ñaanoon njekk mu may ko mhm. donc bu demee tam la mu ko mayeen mu ba loolu délai ba jeexaat mhm. ba présidentielle incha allahu taala 2024 war a ñëw bu nee bureau de vote du am Touba am na droit waaye nag du du arranger opposition bi ndax opposition moom man ba ma xàmmee ba tey opposition mooy gagné Touba tubaarkàlla ak ku mun a doon mm-hmm. donc loolu dina pénaliser opposition bi mais na comme nee na buggul loolu nañ ko ko nangul mm-hmm. gis nga boo gisee sëriñ bi génn wax sëriñ bi dañ koo sonal mm-hmm. sëriñ Mountakha dañ koo sonal torop torop torop torop sëriñ Mbaye Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam ndax da ko dégg si dara dégg maan sëñ Mbaye Sy bi ñu defee nii sëñ déggoo ko si dara mi ngi toog nekk si li ko maamam bàyyeen nekk si ab deram nekk si alxuraan. Mm-hmm. jàpp boppam nekk si li ñu ko dénk. xam nga ñoom kilifa yëpp nag ginnaaw gis nañ ni Sénégal léegi leen na fi am diingat weddi wante lu tax lii ba mu defee lii ba ma defee yooyu yëpp détails yooyu bari na sa soof. Mm-hmm. li sëriñ bi def rek la war a def. Mm-hmm. xaw ma nag ñan ñoo nekk waxtaan ak moom ba tax mu jël dogal bii. waaye dogal bii jël gu ama ama am solo la def ni mbooleem kuy ab politicien. na nga dem nga politique yi. nga dem nga lijjanti ji réew mi te génne ma ci mhm. noonu lañ koy waxee si palaato yi mhm. plateau yi koo gis mu toog balaa am jàmm naan waaw sëñ Mountakha bi ñu jekkoo Ousmane Sonko moo waxoon ni ñu ba mhm. léegi ñu ngi nii ñu jekku ñu mu ni cell bi ñu jekkoo Ousmane Sonko bi ñu Ousmane Sonko kañ la kañ la jekku usmaan Sonko dafa am problème réew mi nekk si ay problème ñu bàyyi usmaan Sonko mu ñibbi ñuy nasaat beneen doxu ñaxtu beneen doxu ñaxtu lañ doon nas pour place de l'Obélisque mhm. sëñ taxaa yónnee délégation ni ne leen nañ bàyyi seen doxu ñax te ñëw ñu waxtaan mhm. ñu dem fekk si ko si loolu loolu aw waxtaan la kon lépp lu ñuy waxte dañoo bañ a war a wax suñuy waxte génn si Serigne taxaa jël ko tege ko nale mhm. léegi nag ñun sunum réew ñu jël ko lijjanti ko bu ñu mënee dem gàtt sa gàtt sa ñu gàtt sa gàtt sa bu ñu mënee xeex ñu xeex bu ñu mënee xuloo ñu xuloo ba régler sunum réew ginnaaw nag moom ab dëkkam la am te mi ngi régler ab dëkkam ak ndonee fam ñu bàyyi ko mu régler ak ndonee fam beneen bi dañuy élection dañ ne woon nañ ko génne fii politique beeg yooyu nee na waat diggante bi kat loolu xaju fi nañ bàyyi élection yi ku nekk fa nga daan watee Touba mhm. nga dem wate ji boo noppee nga dem ñibbi toog diglu résultat yi kon mhm. Touba fépp la ñuy watee nga daan mhm. watee sëriñ bi nag li mu def noonu lu baax la loo xamante ni lu ama ama am solo la na leen seetaan ñoom ba xam fan la wànneen di mujjee ki bëtam ñeneen ñi nga xamante ni nag dañ daan am loo xam ne dañ ko ci seet ndax ndigal buñ ci seetee dara nañ jëflante jaajëf euh, oustaz dégg nga kàddu yi nga xam ne Assane daal ñu ko yëkkati. waaw noo jàngatee. waaw man benn information rek ci li ma dégg ci Modou Modou wax ko. Mhm. mooy li ma mënta euh, d' accord Modou te mun ma koo comprendre mooy munta xaa ñaan na mayuñu ko. Mhm. man daal. man daal non non attention. attax la rek non damay laaj loolu damay loolu ay wax la rek. damay laaj rek ay wax la rek bët bi sëñ bi dégg ñaan sëñ Muntaxa daa ñaan Macky mu bañ daa ñaan Macky mu bañ. nee na saal bi mu demee nag suñu taxaa bu def troisième mandat. xam ma wax loolu xam ma loolu bàyyi. asan comme moom nekk ci penc comme moom kenn weddiwu euh, mu tuddati moom la ñu indil fii dama dama mënta comprendre. ñu ni sëñ Mountakha ñaan na may ñu ko. loolu ay wax la rek. yaa ngi dégg internet. Euh, Baye Assane. waaw wax nga ko léegi. waaw nee nga Serigne Babacar Sy coow li mu baree. lu mu nekkul ay xalifa. nit ñemewu koo xool baat bi. barke rasulullaay dama sëñ Babacar Sy ku ko yab rek bi mu nekkee xalifa nga ko yab waaye bi mu toogee ci xalifa nee na carrément lu leen neex wax leen maa ngi seen xoola dañu salaamaaleykum rek maa ngi seen mbindaan lu leen neex wax leen lu leen neex wax leen nangu naa bootu seen ginnaaw doon seen mbindaan est ngi dégg baam bi sëñ Basiru Mbàkke barke Seydina bi ma ko njëkkee gis Momadou euh, sama xol dafa tooy tooyu lan la tooyu ñeewant dix heures heures yi la ñu egsi ci moom mu joxe appel ni moom heure yi du mën a def dara loolu day jàng alquran ba julli tisbaar keroog moo ñu giidee tisbaar muy góor goo xam ni li ma jàpp man li ma jàpp mooy temps amu ko ndax gis naa estaf ba gis naa ñi muy nekkal seen Muntaxa pour te pour vous la vérité man xam nga damaa ne kañ lay jël conseil sax kañ lay noppalul boppam mm-hmm. parce que chaque jour mi ngi recevoir ci mbiru doomu aadama yi jaamu yàlla yi rek la seen mun taxaane ku mel noonu bu ñu ko amee Sénégal parce que quoi qu'on dama koy wax quoi qu'on puisse dire moo di fii ci Sénégal famille si ak famille Mbàkke bu ñu leen santul gërëmu leen waruñu leen a xarab foo dem am na qualité bam mhm. am na ñoo xam ni tey di exemple laa la jox boo ma neen woon Souleymane tànnal ma ci sëtu Serigne Touba yi mais damay génnee sëñ Moustapha Saliou tagal la ndax xam naa xam-xamam boo xaw naa jàpp parce que damay topp ay bindam kuy suivre ay bindam laa dama la wax rek ni la mag ñooñu Sénégal poids xoola doole jooju ñu am muudu ndax Serigne Mountakha war na toll ci dimension am lu mu soxla ci état luy jëriñ askanu Sénégal ñu ni loolu Serigne Mountakha day nangu luñ ko ko xaw ma nag mu information bi demee xaw ma nuñ ko ak nu mën a xew kon euh, Didi nañu am yërmande ci benn côté nañu am yërmande doole day jeex de damay wax ni pale war nañ faa bind li yàlla wax ne xulillahuma malikul mu tuuti mun ko man tasha war nañ ko faa bind di yàlla mooy joxe nguur yàlla mooy nangu ci nit nguur yàlla mooy joxe nguur de waaye mooy nangu ci nit nguur te suñu borom nee na bis bu ma demee ba nguur xam nga lu gën a garaaw sa heure falu jotul nga ni par force damay falu boo Sonko bëggee du am ñaari Mali waaye heure jot ñu ni par force du falu ñu naan du falu yàlla da leen di teg leen ne fal ko kenn mun ci dara kon li ñuy wax ci côté boobu Moodu mooy nañu dellu siwaat jikko yi nañu dellu siwaat repères yi nañu dellu xol yi dellu siwaat xel yi mhm. maa yu yunfadu wa maa indallahi baaxin alxuraan nee na bam bi lépp lu nekk ci yéen ci pouvoir ak alal yàlla nee na day jeex tàkk mhm. waaye li may li ne fi man yàlla fi lay des te du fi jóge mhm. ajaati di Euh, Alaaji Maodo buñ sukkandikoo ci li nga xam ne loolu la oustaz wax est-ce que nekkul le fait que mu ñaan état ñu gàntal ko ko moo tax mu génne ko nañ ko génne ci biir parce que toll ni euh, sëñ Mountakha génn ñaan ñu gàntal ko ko day mel ni tuutal la te nag waaw te nag dafa nekk koo xam ne kum ñaan rek boo xoolee ci jëmmam gi xool fi mu jaar ak ñi mu bokkaree da nga ko war a nangul waaw sëriñ moo xaar ñu ngi koy yàgg gën a ñaanal mu gën fi yàgg gën a wér mhm. di ko ñaanal xalif généraux yëpp cest mu ngi wax ne li mu dégg mais Assane Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass dégg na fi lu raw loolu. waaw ah. Cheikh Mahi xalifam Baye Niass. Hmm. Hmm. dégg na fi lu raw loolu. waaw suñu xalif généraux yi la war a génne ci espace politique xam nga xam ñun ñoo ne fa yóbbu homme politique yi. waaw homme politique yi ñooy def bu ñu bëggee dara dem ci ñoom raamal leen tarbiyu leen suñ paree ba am lu ñu bëgg. pare ci ñoom. yaa ngi wax ci kaw Ousmane Sonko nañ wax kaw xalifa Sall Mbaye Touré est-ce que xam nga ne Mbaye Touré bi ko sëñ Mountakha di ñaanal bu nekk góor xalif ñu lànk et nguuru Sénégal lànk ndax Mbaye Touré dañoo jàpp xalifa jàppale ko ndax moom moo nekkoon euh, ku waroon def décaissement ci mairie ville de Dakar ñu ñaan ñu bañ gis nga nag nit ki te man Sëñ taxa pour man daf daf daf leen a suur ndax nit ki mënoo ñëw bu soo rongoñ kiwee nga ñëw ci moom jooy mhm. bu la ko feralee nga ne daf la neex bu la nee waccal nga ba lànkal bàyyil nga nga lànk loolu mënul ne 2021 ñëpp xam nañ rôle bi mu ci joué bu nekkoon moom kon leneen mun nañ ko wax kon xëy na instant bi ñuy naan période de transition la ñuy def wala nangam ndax boobu nguur gi mu ngi ci mbedd mi. Mm-hmm. maa dégg benn kilifa mu ne ndaw li sëñ Mountakha yónni laataa muy agsi Dakar Macky Sall woo na ko ñaar wala ñetti yoon di ko laaj fa tool ndax boobu bëggoon nañu wax xale yi xale yi toog. waa dafa nànk rek. dafa nànk rek. xam nga Assane wax bu amee wax bu amee. soo ñëwee ne ma sëñ Muntaxa ne la nangam ak nangam nga wax ko ci penc mi ba njaboot sëñ Muntaxa jot ci buñ ko weddiwul damay jàpp li nga wax dëgg la. est que waxuma ba xam waaw dama nang rek li wax dafa leer dama ne. boo ñëwoon tey nga ne ma xalif général day Baye Fall nee na nangam ak nangam nga ci émission bi. nga mhm. toog semaine ñoom njabootam gi kenn weddiwu ko. dama ne Assane wax dëgg la. Mhm. mais maa ngi xaar ku weddi waxi sëñ Cheikh Coro boobu noonu. ba mu ko waxee daaw jéeg la. Mhm. bale léegi dégguma ko ko weddi heure bu ñu ko weddee rek ma dugal beneen ma dugal beneen kii. dama bëgg a wax ne Cheikh Mouhamadul Mahi koo xam ne jóge na fii dem dëkk dëkk jubale mu wax fi benn wax mais ñu yekk ko lu mel ni xamee ci ci réseaux sociaux yi loolu rafetul. gis suñu kilifa yi gars yi li ñuy xëccoo ñoom soxlawuñ ko sëñ Mountakha li gars yi di xëccoo président soxlawu ko ndax ku ci fal président boo demee toog ci ronam soxlawu ko soxlawu ko. kon xam nga moom dafa nekk au-dessus de la mêlée moom nekkul ci am diw wala andi diw day xool li nga xam ne mooy andi stabilité ci réew mi mm-hmm. ndax dafa jabote ñëpp léegi nag li mu wax ci Baye Fall yi ak gendarmerie dina assister lu baax la mm-hmm. gis nga Didi civil mënul arrêté civil mm-hmm. civil bu arrêté civil rek ci injustice la koy teg léegi nag bu àndee Baye Fall yi andi gendarmerie ak police ñu encadré leen xëy na dérive yi Bambi di dénoncé ñoom dinañu ko éviter ñoom dañ leen a formé pour ñu de sécurité mhm. aar askan bi mhm. mais tey man su ma ñëwoon tey ne ne bi jox ma sa téléphone bi mhm. fan laa koy teg man as état jox ma benn ndigal pour ma nangu téléphone Bambi Bambi bu bañee ma dóor ko bi daf may yóbbu ci yoon damay am problème Sénégal moo nit ñi ñoo war a comprendre ne Touba dafa am spécificité bu mu am mais ñi nga xam ne dañuy wëy ci ndigal xalif bi aussi nañ ci dem avec modération ndax tey jii nii xëy na état mooy teg tànkam rek mais koo dóor nit wat ko bu la bu dee yóbboo ci yoon. Mm-hmm. mais loolu dalaa war a teg loxo. Mm-hmm. kon ñoom bu nekkee maanaam am nañ pouvoir bu ñu yoree. ñoom bu ñu koy exécuter ci kaw nit ñi dañ ko modérer man foofu rek laay wax. Mm-hmm. waxuma ne nag dëkk jàmbur loo fay def na neex waa dëkk ba. ndax loo fa def loo xam ne neexul waa dëkk ba. yow yaa tooñ. bu fekkee Touba sëriñ bi dafa teg ay conditions yow arrangé wu la mais tuxul. jaayil sa kër nga ñëw dëkk fi nga xam ne loola neex nga def. nit ñi def loolu léegi nag bu àndee police ak gendarmerie ça c'est une chose beneen bi mooy vote bi xam nga vote bi tey bu nekkoon dañoo éliminer électorat Touba opposition bi lay pénaliser ndax ba élection yi fi mujj jaar yëpp opposition mooy gagné Touba kon vraiment décision bu sage la malgré ñoom dañoo évoqué ay raisons techniques yoo xam ne moo taxoon mu mënuñ ko def mais moo lay wan ne sëñ Mountakha nit ku màgg la nit ku flexible la le fait mu bàyyi ko mais nag bu ko bàyyee dañ ko ñàkk ba mu bañ a déborder comme ni ko bëggee léegi nag gedd gi mu gedd politiciens yi maa ngi ko ci félicité di ko encouragé mhm. ndax politiciens yi seen intérêt rek la ñuy wër mhm. bu ñu jàqee wuti ku leen wallu bu ñu amee ba mën boo nee wàccal ñu lànk mhm. ni ko mel noon na boo ko amee yow ku fa ñëw te di la wax waxi politique nee ko bu fi ñëw ni mu ko defee ni noonu la ndax nit ku mag noon lay def te suñu xale yi nañu génne suñu kilifa yi buñ leen jaxaseeg suñu kilifa yi ñun suñuy kilifa la ñu am li fi Serigne Touba def li fi Mawlana Cheikh Ibrahim def ko fi Cheikh Sida def ko fi Euh, euh, Cheikh Saad boog ñëpp nañ ko sàmm ndax mooy suñu force buñ ko piétiner ba yàq ko ndax tubaab bi ci loolu rek la nekkoon pour yàq ko mënu ko def ba mbir mi tey woy ba ñun ñëpp ñu dugg ci suñu doom dugg ci mhm. loolu ñun nañ ko sàmmal suñu bopp mhm. ndax ñoom seen wàllu wéy na yoon bi ñuy tracé tracé nañ ko suñu njëriñ dong la mhm. kon buñ nangu ku ñuy jaxase suñu kilifa diine yi macha allah kàddu yi am na solo